ci vocal bi nga xamante ne ñu ngi koy véhiculer ci mhm. audio bi nga bi nga xamante yaa ngi ciy wax eh, ay kaddu yoo xamante ne bëgg nañ nga bamtuwaat ma bamtuwaat ko waaw dama ni le projet Pastef daf ci am loo xam ni moo waral dom ñi nga xam ne ay dong daara lañu maanaam ñi yor sant fëgg jaay mel ne man yor sant caam njaay jóob jenn ay dramé sant fëgg jaay ba pare di xaru <laughs> koo ci toog di waxtaanal mu mel ni ci Ousmane Sonko koy bàyyam dafa am loo xam ne dañ ko ficelé ci bi ñuy togg projet Pastef projet bi laa wax projet bi daf ci am benn pàcc boo xam ni. Mhm. ils étaient très intelligent parce que dañoo ñëw jaar ci diine Sénégal xam nga mhm. dama ni réew mi dafa am ëkk gu ko téye te ëkk gi pour nga Sénégal dem force nga dagg ko pour nga dagg ko il faut nga dindi reen yi nga xam ne moo implanté wu ci suuf te reen yooyu boo ci topp ba ca cat la day laal diine Sénégal. Mhm. te reen yooyu pour nga dagg ko nag moom laa la expliqué ñii au lieu ñu dagg ko dañoo ñëw profité ci pour doctriner nit ñi parce que diné ji ni dafa trois facteurs. Sénégal. dafa am ko ni bi mu ngi parce que maman, Gabon dem ma yomba julli ci géej ki maman mo suis ba Makka mo doxone ba Maroc mom moy xaritu Cheikh dox dem Nigeria, Touba li ëpp ci biir Afrique def leen ay jullit maman, ne wax kii sant Mbàkke kii sant Ñas kii sant Si kii sant Laay kii sant Cene ba extra mooy suñu confrérie mhm. ñooñu loolu mooy seen diine ñoom mhm. ñoom ñoom ñooy porter la partie rayonnante de la de de de de la puissance de notre religion dans notre pays am ñeneen ñoo xam ne nag ñoom ñoom ñooy jàngale diine ji mooy ñi yor sant fëgg jaay hmm. ba pare mokkal alxuraan di ko jàngale ñoom ñoo nekk ci dong ñoo nekk ci daara ji ñoom ñooy dem daara ñoo fay jógee ñooy ubbi ay daara ñi ëpp ci ñoom lool rek la ñuy mën duñ mën lu bari ñom lañuy produire ñom le réew di produire lu jëm et ñom de 1960 à aujourd'hui dañoo nek dañoo investir seen temps ci lo xamni daf leen def ay l'explosion de la technologie ñu am occasion de xam que yalla, yàlla am ci vulnérable ñu vulnérabilité Et ak seen liñuy dund que bobu nonu kan lañ ko projet ñew capacité wu porter le fardeau. loolu beneen pàcc la ci diine am ñoo xam ni c'est des sénégalais orthodoxes éliminés ñoom ñoo demoon jàngi ci arab yi ñu endoctriné leen c'est des traumatisés de lislaam ñu leen di woowee les salafistes du ñëpp nag mais ñenn ci ñoom dañuy sol tubéy ju gàtt guddal sikkim bëgg carrément les tarixa yi jóge fi ñoom seen yoon ci dund bu bu yomb ceeb bu neex diggu wàññeeku wala xar yu jar ak yu jaru ñoom li ñu bëgg mooy ki nga xam dafa sant Mbàkke nek ci benn bourgeoisie ki sant ñas ñu leen di ñuy porter suñu image wu diine ñoom ñele ñi lañ bëgg ñu jóge fi catégoriquement loolu tax ñoom it ñu ñëw rebelle wu di organiser wu jàpp ni seen solution ñi mën nañ leen ko fajal évidemment ñoom it ñu jël fardo bi ni leen ñun bu ñu ñëwee da ngeen gis seen bopp ci réew mi donc loolu la ñoom dañoo jaar ci biir diine ji sende leen léegi nag comme ni ma la waxee sànq man mi am malchance jaar ci dëkk yi ma la limal sànq. Mhm. te ma amoon taxawaay bu metti ci tarixa yi commencé ko ci tarixa bi ma bokk muy a murit mhm. man rek maa njëkk a nekk sénégalais bi juddoo Touba yaroo fa màgge fa bokk ci yoonu murit di dénigré li ci nekk te baaxul parce que gisuma sama bopp ci biir réew mi ay millions yi sénégalais yu gisul seen bopp ci biir réew mi te li ko waral mooy dëkk giñ dëkk Touba te Sénégal dafa exclure tubaa information boobu ma yeex ko am ma jël li ma nekk ci mer mépp ma wëkk ko njabootu sëñ Touba gi wékk ko waa Touba mais man bi ma koy wax tombeeg ñoom ñiy wër réew mi te bëgg ku ñu laaxaale ci loolu ñi ñëw ci man defal may proposition bi ma duggee ci seen biir laa xam ni kon maa ngi ñi bokkuñu fuñ jëm ñi dañ ñoo bëgg a jëlee ci sëñ Touba ak alaaji Malick indil ñu Mouhamad Abdal Wahab wala ñu ñuy indil ay Aboubacar Chekawo ci réew mi ma jaar nag ci ay réew yoo xam ni damay xam ni ñii li ma bëgg ak li ñu bëgg baaxul ndax damaa jaar ci réew bu ñuy wax Nigéria li commencé Lagos Kaduna Zaria Jos protocole mu nekk ben jeune boo xam ne plus de 80 millions de personnes ñoo fa nekk nekk ay musulmans ma jaar fa mu am benn stabilité bu baax bi fa Baye Niass ak i sëtam di dem. Mhm. jaar fa bi fa bëkku aram implanté woo ak ni mu ko yàqee jël nit ñi def leen ay ay fanatiques hypnotiser doomu aadama yi def leen ay kamikaze nit ñi di takk bomb di dem dugg ci ay marché di rey ay doomu aadama di détourner ay nit di dindi parce que dañoo pauvre ay étranger religieux étranger financer len ay Aboubacar Chakaw ay Mahamad Youssouf ñu ñew jël nit ñi endoctriné len c'est la même chose que la gis muy ñew ci ci réew mi ma ni non deug la mourid maa ngi ci juddu yaro ci mag ci neexuma lima ci dundé mais magi ngi dund dund bu dégal du jël nak ko xam kenn du ma nangu di ma jël ci Sëñ Tuubaa dima ma ci Mohamed Abdel Wahab hmm. lool la lay expliquer loolu mo waral frustration bi ci réew mi

waaw euh, actualité bu gën a fës la muy mbirum mhm. euh, Doro Gueye di PDG euh, bokkoon si ñi nga xamante ne ñoo gënoon jege ki nga xamante ne mooy le président sortant di Macky Sall mhm. ñu nammee ko arrestation lundi ba waaye liñ koy toppee ñu naan nee nañ mbirum foncier la ba tax na rek moom mbir mi tudd na ci ki nga xamante ne moom mooy le président sortant noo ko jàngatee. non vraiment loolu xaw dara gi ngeen yor sax xaw ma. <laughs> xamoo Doro Gueye non non sincèrement. l'homme d'affaires je le connais pas franchement franchement man Sénégal ay pauvre la xam homme d'affaires yi xawma leen man pauvre yi laa xam ñom lay waxal ñun ñu dajaloo créer suñu ma rew pour ñëw nangu réew mi défar ko pauvre yi. mooy nag ñi am jariñ ci rew mi. gis nga rew mi taram lan la. Hmm. mooy lan la partie rayonnante de de sur le plan infrastructure de notre pays. quand tu prends un avion tu viens à Dakar bo jógee ci rew Afrique yi saxol day sedd. Hmm. da ngay xam ni on est dans un pays bien structuré sur le plan infrastructure. maçon yi ñoo tabax lepp ay maçon pauvre yi ñoo gën pauvre ci rew mi li rafet ci rew mi ñoo fi def dëgg la Sénégal bokku nañ ci ñi nga xam ñun rek ñoy importer la mode culture de notre pays bokku ci réew yi Afrique yi fo ci dem ay Sénégal nga fay fekk ño daq ñëw ci Afrique. Hmm. ko fi gis ci bureau wala ci plateau limu sol Sénégal lañ ko ñëwee moy tailleur yi. Hmm. ño gëna pauvre ci réew. Hmm. Sénégal bokku na ci Afrique dëkk yi nga xam ño ñoo daq defar ay dal bo démé ngaay xam dara bo duggé fi ci sànd nga xam dara. ñoñu moy cordonnier yi. ñoo gën pauvre ci réew yi. Sénégal ño daq defar ay table ak i banc ak armoire ak bibliothèque ñan la moniser yi ñoo gën a pauvre ci réew mi ñooñu laay woo man ñooñu laa xam ñooñu laa soxla te xam ne li jariñ réew mi lépp ñun ñoo koy defar te pourtant ñun ñoo jariñoogul kon hmm. na ñëw ñu jàpp ci ma réew hmm. ñu jël réew mi defar waaw mais nag Zeyna ah, dina wax na ci arrestation yu jéggi fan yi sànq ñu dégg ki nga xam ne moom mooy directeur de publication turbine yenn kaay bu ah, budee média xanaa ah, moom tamit dina ci wax <laughs> non loolu fi mu toll nii ñu ngi woote fi mu toll boo xam ne waaw comment moom la ñu commencé. dañuy wax lu amal njariñ man damaa bëgg plateau bu ma toog ma wax lu bees. mais xam nga tamit lu loolu tamit am na njariñ loolu amul problème yooyu wax naa ko tënk naa lépp ci li xew. ci hmm. Baye Diakhaté. ok gars yi wax nañ ba jël réew mi. ok munuñ ci lu toll ni tarfatal ay di. lu ñu waxoon le 15 la ñu waxoon. Mm. danañ wàññi dund bi après aj nañ ko ba démb ci même ah. démb bi. Ah. mënuñu ko wàññi instant bi ñuy dialogué. Mm-hmm. premier ministre baa nga ci suuf naan mënu ko wàññi comme ñoom dañoo ay ci informatique. Ah. ak des fake news ñu étouffé ko ba génnul. lépp lu ñu digoon nit ñi ci lu baax bu ñu accès ci période bi ñu war leen ko tegal ci kaw ñu indil ñu benn cinéma pour man c'est du cinéma. ok mm. xanaa tey tey pour pour pour yow lan mooy solution évidemment bi limay citoyen sénégalais bi te citoyenneté bi makoy tambalé ci sama pour ans on va les encadrer et les accompagner parce que c'est l'intérêt de la nation il s'agit pas d'être contre pour être contre mhm. c'est pas parce que dama rek man ni non dañ wala mhm. parce que ni opposé wu opposition bu opposition gu bon gu ñaaw gu nañ quand même ba président Macky Sall kon de façon très responsable mhm. bañ a wax rek ndax bañ a wax lépp looy wax na nga ko étayé mu nekk loo xam day amal njariñ réew mi ñu bañ fee nekk di opposé wu di crêper les xastante waxante lu bon waxante ci loolu amalul njariñ réew mi mm. nit ñi dañoo bëgg liggéey ñi ci nguur gi nañu liggéey ñun ci opposé wu ñu liggéey mm. liggéey ci xelu doomu aadama yi ak compté di natt di saytu li nga xam ne doxul ci réew mi ñu koy tëgg ci suñu ay programme mm. man foofu laa gëm donc mm-hmm. may woo sénégalais yi ci mouvement bi di doog juddu nekk dénominateur commun ñu koy wax mëréew li nga ko waxee dëgg la sénégalais yi ñee baratina nañu leen

kon maa ngi leen di ñaan ngeen ñëw rejoindre boo leen xamee ni yéen a am capacité wu war a jël palais du peuple muy assemblée nationale ah. na ngeen ñëw ñu organiser pour législative yi ñu am majorité loolu la